salaamaaleykum maa ngi tudd Odette Ndière Ngom nekk euh, rakku Théodore biram Ngom adjudant de la gendarmerie euh, tey ma fas yéene euh, indi ay leeral ci problème bi nga xamante ne mi ngi tàmbale ci famille am ak frère am doom baayam Alexandre Ngom maire de la commune de Thioumi. tey ma am lu ma metti di wax publiquement ci problème boo xamante ne waroon nañ ko régler en interne mais malheureusement ñu am ay mag yoo xamante ne ils sont des irresponsables loolu laa mën a wax parce que le linge sale se la lave en famille te ci yoon boobu la suñu papa yaree tey àdduna di dox ba ñu yegg si fii tey ay doomam yegg si fii ma am tey lu ma metti pour wax ci euh, depuis problème bi bi mu tàmbalee ba tey Alexandre maa ngi nekkoon en contact ak moom bi koy woo di koy message ci kaawu Théodore pour ñu mën a xool ñoom ñu woote village rey ñoo toog waxtaan woo kilifa yi ñu waxtaan mën a régler problème bi mu jeex mais problème bi di dem di dem ba Alexandre en tant que intellectuel une autorité mu jël un problème de famille associé ko ak euh, un milieu professionnel depuis lors man ak samay sœur ak sama petit frère yi ma bokkal ndey ak baay on a tout woo nañ Alexandre message nañ ko def nañ lu nekk on était tous contre Théo ndax di xool lan cohésion cohésion familiale malgré lépp lu bon li ñu ñoom Alexandre teg teg ko sama yaay ci naka ñun mosuñ leen xoolee bët bu ñaaw ndax suñu yaay dafa ñoo yaree ci muñ ak fonk sa doom baay mais ñoom xooluñu loolu man mii nga xamante ne je suis la plus petite de la famille dem naa bay woo ay prêtre pour ñu mën a régler problème bi ndax sama papa dafa amoon attachement ci église catholique dafa doon wax même bum mu deewee ginnaawam lépp lu mën a am église catholique nañ ci dugal seen loxo moo taxoon man ci sama xalaat ma dem bay contacter ay prêtre pour ñu mën a ñëw sotti ndox yu sedd ci suñu kër ndax xamoon naa ne lii raam nii ci ñag ba la jëm te waxoon naa ko Alexandre mais comme moom il a préféré se suffire à lui-même de par son ak mën a xeebaate yaakaar ne moom rek il a le monopole de la vérité bi affaire bi commencé ñu koy tuumaal ñuy tuumaal Théodore ne dafa dof man Alex dama ko doon envoyé ay message di wax lu nekk pour ñu euh, fexe Théodore bu fekkee ne moom dafa dof nañ ko jël faji ko man ci sama bopp comme je suis à l'extérieur du pays nekkuma Sénégal dem naa bay woote samay xarit samay proche képp ku ma xam koo xamante ne ne euh, kii na ak tewo jege woon na ko pour euh, ma xam ko dama koy woone ko demal nga xoolal ma tewo Théodore si il va bien ndax li may dégg nit ñi di koy wax pour ma xam pour ma am ci preuve ne dafa dof ou pas mais képp ku ci dem bu ñëwee suñ daf may naan yow mi yaa dof kee dara dalu ko te tawadoo mi ngi ci jàmm doful tey doful ëllëg ñun ñii ñoo dof li may wax ñi nga xamante ne ñoom laa doon woo ñu xoolal ma loolu bu ñu xoolee vidéo bi dinañ confirmer li ma doon wax sama petite sœur jóge na fi dem vacances euh, Sénégal li ma ko njëkk a laajte mooy gis nga tew dafa dof ou pas daf ma reetaan ne ma Théodore mais dara dalu ko mi ngi ci jàmm mu ne ma yow est-ce que dof dina nekk di dem di liggéey di ñëw am jabaram di gérer këram di dox ay soxlaam mu ne ma kee dara dara dalu ko nit ñi dañ koy sosal di koy tuumaal te ñun xam nañ loolu ci ki mu jóge Euh, lépp li ñu bëggoon mooy comploter dàqaloo taw ci liggéeyam ndax xam nañ ne lépp li mu leen xamal ci secret bu leen toppee ci loolu bu leen poursuivre loolu en justice ñoom seen tur du jarati dara ci réew mi Alexandre ak ay rakam ay nit ñu puissant lañ ci réew mi moo tax ñu yab ñu nakar bu nekk ñu koy teg sama yaay di ñu koy teg ñun mësuñoo génn wax nakar bu nekk teg nañ ñu ko ñun waxuñu di préserver cohésion familiale fonk leen trop bëgg leen trop ndax ñun xamuñu Baye Alexandre lañ xam moom lañuy xool comme suñu image yu papa mais Alexandre dem bay nekk ginnaawu complot bu bon boo xamante ne c'est la vie de la personne qui était en danger qui est en danger jusqu'à présent laay wax sax ndax le samedi 11 septembre Théo dafa nekk këram boobu maa ngi en communication ak moom mu jékki-jékki ay nit ñi ñëw di ñëw en encercler këram ay kii yooyu boobu maa ngi nekk en communication si moom maa ngi koy naan est-ce que doo woo police wala nga woo euh, commandant bi gendarmerie bi nekk euh, foofu mbuur ñu ñëw jël ko yóbbu ko sans wax famille am ci kanamu ay jabaram ak sama benn ñees bi nekkoon kër ga ñu mënate ko yóbbu ko sans wax famille am fi ko yóbbu te la nuit di samedi 11 septembre mi ngi coïncider woon ak 21 euh, ans anniversaire u décès sama grand frère sama taawu yaay ñun ñu tiit guddi googu kenn nelawul kenn lekkul jusqu'au dimanche ñuy woote fu nekk di laajte sama sœur bi nekk Sénégal ak sama frère bi ñu nekk di laajte di woote kenn xamul fi Théodore nekk te ñoom xamoon nañ fi mu nekk lii yépp seen jëf la ndax lan di wone ne dañoo am ay connessance ci dëkk bi connaissance yooyu est-ce que mënoo leen ko utiliser ngeen jàppale seen mbokk moo gën ngeen di koy jëfee lu ñaaw ñun Théodore xamuñu woon si lim nekk bala dimanche ci laa kaw ci laa teg euh, ci depuis le dimanche euh, euh, nu mu tuddati depuis le samedi ci guddi laa teg Alex pression di koy wax di koy bind ay message yu lu ma neex rek lu ma ko xamal xamal ko ko moom ak ay frères ma wax ko ko di koy menacer teg ko pression ne ko teew fi mu nekk di ngeen ko génnee il a fallu ma passer accéléré à la vitesse supérieure le dimanche pour ñu door a xam ñoom moom ak ay frères am ñu door ñoo wax Théodore fan la nekk ñu door ñoo envoyé message wax ñu Théodore fan la nekk may laajte ndax loolu yoon may na leen ko walla. pouvoir la walla lan la ñun comprendre ñu boobu ba tey Alexandre message yi ma ko envoyé du ko du ko won kenn du ko won jabaram ay doomam ndax bu ko def comme ko won këram mooy tas sax ndax xam na li ma ko wax te xam na man lan laa capable te gis nga Théodore ne naa ko Alexandre nee naa ko man sama bakkan moom laa ci teg am na loo xamante ne ay mag lañ nekkatuñu ay xale bu naree am man ma dee sax moom ma ko gënal waaye am na loo xamante ne Théodore doo leen ko ko teg fekk ñun ñuy dund parce que silence bi dafa yàgg depuis lors ba tey ñu ngi noppi waxuñu façon naka bu nekk teg ngeen ñu ko ñuy sàmm coloré ngor ak dignité ndax ñun on est digne on est très samay doomu yaay si dignité lañ ñu yaree ak ñafe quelque que nag la les les conditions difficiles ak nu mu méttee métti sama yaay boobu ba tey depuis des années des années lépp luñ ko teg ci lu bon sama yaay daf ñuy naan muñ leen ba tey tey tey bi may dégganteeg sama yaay même chose kàddu googu la wax. daf ma ne muñ leen yàlla dana àtte mais Alexandre respecté wul sama yaay joxu ko benn cër bi sama papa gaañoo la nag ba tey respecté wul sama yaay rawatina nag li mu jur maslaa ngistal moom la nekk di dund ak ñun moom ak ay frères may ñaan le président les institutions de la république les organismes de droits de l'homme ñu jàppale ñu ci affaire bi ndax Théodore boobu ba tey ñun xamuñu ci lim nekk lekkuñu naanuñu ñi ngi ko séquestré hôpital principal téye ko foofu ñun sa propre famille xamuñu ci lim nekk dañoo woote ba sonn lekkuñu naanuñu boobu ba tey lekkuma naanuma ku ma gis rekk xam ne dama sonn guddi gi duma nelaw dama jooy